bismillah asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu monsieur le président ce peuple baa ngi ni nga jàkkarloo ñoom ñoom ñëpp yàkkamti nañoo toog ak seen président gis ko xool ko mu xool leen ñu am confiance am wóolute ne ñoo seen président ñoo nekk fu nekk ñoo nekk fu nekk ñu ngi kontaan ci ñëw bi nga ñëw yéex a ñëw bi nga ñëw mu suñu naqari parce que xam nañ sa bilan ngaa dem seeti ay sëriñ nekku ci waaye li ci nekk mooy Sénégal lañ la dénk Sénégal lañ la dénk ci marché bi Sénégal lañ la dénk ci mbay mi Sénégal lañ la dénk ci école bi Sénégal laa ngi dénk ci wér gi Sénégal googu lañ la dénk Sénégal googu lañ bëgg ngay nemmeeku di xam fu mu toll yàlla na la ci yàlla dimbale ñu ngi kontaan bu baax itam ci nga toog ak ñun ci fan yu tedd yi fenu xaar yonent yàlla Muhammad màggal ko Euh, bégee ko yàlla indi la fi nga ñëw méri na incha allah ñu ngi yaakaar barke ñu yaakaar ci yonent yëpp yal la ci yàlla jiital ala fokk itam yow la ci yàlla jiital parce que yow la yàlla jiital ci kaw Sénégal yëpp yaay président de la république Sénégal te président de la république Sénégal moom la yàlla di njëkk a laaj balaa laaj keneen buy mayee itam moom lay njëkk a may balaa may keneen ñu ngi ñaan ñu ngi yaakaar yàlla yàlla may la nam gën a lëwee yàlla may la nam gën a dëgëree yàlla may la na mu gën a leere yàlla may la na nga gën a yëgee sa peuple sa peuple yëgee la ko su ko defee bu boobaa ñu ngi yaakaar ne Sénégal gi Sénégalais yëpp di gént yàlla mën na koo dëggal ci yow Sénégal gi Sénégal yëpp di gént ba nga xam ne kenn dootu dem ci géej gi Sénégal gi nga xam ne moom la Sénégal yëpp di gént ba nit ñëpp am jàmm su ko defee Sénégal googu yal na ko yàlla jaarale ci sa loxo ba yàlla tëral ko ba ba bañ àgg ci ci jàmm ñu ngi kontaan ci gis na ci biir eh, population bi fii nga toog ni tey ci fani gàmmu gi ñu ngi doon tabax tabax bi tabax bi tabaxuñ ko pour euh, am nañ xaalis wala dara waaye fii mën naa la wax ni université la ndax li Cheikh Baye ma daan jàngale yëpp fii la daan toog di ko jàngale ñi ko wuutu di gannaaw itam di jàngale fii lañu toog di jàngale waaye léeg-léeg dañuy toog di jàngale ba mu yàgg taw bi ñëw yàq suñ téere yi tasaare ñu ba njàng mi du sotti am ci ñoo xam ne dogu nañ ne lii danañ ko xeex ba nga xam ne kuy jàngalee ti di nga toog am jàmm ñi jàng dinañ toog am jàmm ba nga xam ne euh, taw bi dootu yàq suñ njàng dootuñu tasaare dootu yàq suñ téere yi bokk na ci li tax ñu tabaxee ko ni rafetal nag rafetal la rek jamono bu nekk jumaa ji ba mu paree ñu di ko sanc président Abdoulaye Wade moom la taseet moo ñëw sanc ko bii itam bi mu paree nga xam ne wax naa leen ne université la parce que rôle université lay dox ñu koy sanc taw yaay ñëw sanc ko yow yàlla may nga sanc ko te comme ni nga ko waxee ci sa wax ñaar yooyu rek ñoo amee diine ñaar yooyu rek ñoo amee réew diine ak xam-xam ak xam-xam ñoo kon nag gis ñu ngi dégg yaa ngi encouragé diine won importance bi mu am ci doomu aadama yaa ngi koy wone te itam wone woo ko rek am ci mais yaa ngi koy jëfee xam-xam itam voilà comme ni nga ko xamee gis nañ yëngatu yi nga xam ne yaa ngi koy yëngatu bees pour jëm ci école bi jëm ci jàngalekat yi yooyu yëpp ñu ngi koy gis te loolu yëpp mooy li nga xam ne moo mën a tabax avenir bi nga xam ne moom la Sénégal yëpp yaakaar ci yéen ba teg leen ci place yi ñu ngi sant yàlla bu baax dina la yàlla tegee ci place bi nga xam ne euh, yaa ngi toll ci ndaw encore say gént ba tey mën naa nekk gént yu foor a foor ñu ngi e, bu ñu ko ay rek ñoom lañu fi daan waaye tey ñu ngi fi taaj ndaw boo xam ne moog ndaw yu ñoo avancé bokk lu ñuy gént bokk lu ñuy bëgg yal na ci yàlla dimbale loolu nga bëgg pour Sénégal yëpp te wax ko yal na ko yàlla dëggal yàlla bu Sénégalais yi di demati feneen di uti yàlla nañ am fii lu leen fi téye yàlla bu suñu doom di suuf ci géej gi di dem te e, e, uti te liñ am liñ li ñuy uti mën nañ ko am fii su fekkee nangu nañ liggéey bu baax a baax liggéey nag du da dem rek ci bureau yi wala diplomatie mais tool yi itam liggéeyukaay la mbay liggéeyukaay la moo tax am nañ projet mbay bu rëy ci tey ba ñeseen ci ci quatre cent euh, hectares yoo xam ne dañoo pare pour di diggante lépp lu suuf di mën a génn pour jox ko doomu aadama rek suuf soosu mun na koo génnee moo tax ñu ngi sonn ci tool ñu ngi sonn ci tool yooyu euh, ñu ngi yaakaar incha allah feeg ñaar ñetti at ñeenti at dina joxe euh, fruit incha allah ñu ngi kontaan ci sa toogaay fii ci ñun population bi di xool seen président de la république président de la république di xool population am xoolante ñaari doole yooyu yëpp yàlla mun na cee génne barke boo xam ne incha allah dina feeñ ci sa yal na ko yàlla feeñal ci sa liggéey wax nga ko Sénégal soxla na jàmm soxla na ñaan ndax soxla na jàmm Sénégal soxla na ñaan ndax soxla na génn ci difficulté yi nga xam ne am na ci àddina bi yépp te Sénégal benn parti ci àddina bi sox soxla na ñaan pour yàlla musul ñu ci yooyu ñu ngi ci di ñaan guddeeg bëccëg soxla na ñaan ndax itam bëgg nañ lépp loo xam ne dafay yóbbu nit ci développement bu bu aw yoon bu dëgër bëgg nañ caa àgg bon tamit soxla nga ñaan dina ñu ngi lay ñaanal ci loolu mosuñ laa ñàkk ñaanal benn waxtu suñ président de la république moom la ñuy àndat moo nekk ci suñ kaw moo nekk ci suñ xel moo nekk ci suñ xelaat moom la ñuy ñaanal yàlla moom lañ bëgg yàlla defal ko tawfiq parce que tawfiqam mooy tawfiqu sénégalais bu nekk ndax loolu sénégalais yi bëgg yépp dëggal ko yow lañ ci délégué ne la jiite ko ak ñi nga àndal donc yàlla moomu la teg foofu jiital la Sénégal yëpp jiital la yàlla moom du la bàyyi te ànd te dimbalewu la ñu ngi yaakaar yàlla yokk ndimbalam ci yow bañ gis Sénégal bi nga xam ne moom la Sénégal bu nekk di génti ci Sénégal développement am am xam-xam yépp yal na ko yàlla jaarale ci seen loxo ngeen dëggal ko ñu ngi sant mbooloo mu tedd mi ñëw ngir bégee seen suñ président gis ko xool ko bégee ko loolu itam ñu ngi leen ciy gërëm bu baax euh, ci seen teewaay ci wone ne fonk ngeen ñun ñëpp fonk nañ suñ président te ñu ngi koy ñaanal yàlla yal na ko yàlla defal tawfiq yan yàlla dimbale la yal na yàlla saxal la yal na yàlla àggali Sénégal ci gént yu kawe yi nga xam ne yaa ngi koy gént sénégalais bu nekk di ko gént yal na ko yàlla feeñal ci seen loxo ak ci seen ay ji ngeen toll incha allah yàlla yàlla dina leen ko defal jëf ci sa teewaay néeri na jërëjëf ok amiin amiin amiin amiin